waaw salaamaaleykum maa ngi tudd Ousseynou Kébé nekk président réseau des taxis de la banlieue du département de Rufisque nekk le vice-président de la gare de Rufisque voilà tey euh, dañu xëy yeewu ak euh, métit ak naxar euh, ngir suñu suñu suñu kilifa bi nga xamante ni c'est le serviteur le créateur bi ñu tuddee Fallou Samb nekk syndicaliste aussi au niveau national Euh, ànd ak euh, benn mouvement bu ñuy wax fii buntu bi union des citoyens buntu bi euh, bi nga xamante ni le maire le président François Babacar Touré moo ko jiite ñu am benn liggéey bu rëy bu mag bu rafet askan wi am yaakaar ci ñoom au niveau du nord dans le nord en général ñu am yaakaar pour jox leen maire bi le 23 juin le 23 janvier bii di ñëw ci kàttanu yàlla parce que askan bi ñoo jóg ne François Babacar Touré moom la ñu def suñu maire le 23 janvier 2022 waaw su fekkente ni dafa am ñu ko dégg nag ba gis popula population bi nga xamante ni ñëpp ñu ngi ànd ak mouvement bunt bi eh, jox leen bopp ñu xëy wala toog ba guddi jot ñëpp tëdd ñu ñëw fekk président Fallou Samb bi nga xamante ni moo ànd ak Babacar François Babacar Touré pour changer Euh, le nord en général pour changer doxalin bi nga xamante ni doxalin bu métti la woon ci waa Tëngéej pendant douze ans euh, ñu jóg pour ñëw taal oto Fallou Samb taal kër Fallou sàmb loolu dafa nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla dañ koy déplorer dañ koy ñaawlu te lu lu métti la moo tax ñu ñëw fi ñun ñëpp ànd ak euh, président François Babacar Touré ànd ak mbooloo mi nga xamante ni moom la àndal tey waa waa Santhiaba ñu ngi fi waa joor Diorga Montagne ñu ngi fi waa joor ga Rahmane ñu ngi fi waa Cité Takko ñu ngi fi waa sant yàlla ñu ngi fi la noor yëpp a ngi ñëw taxaw ànd euh, di masawu président Fallou Samb bi nga xamante ni ay defkatu ñaawteef jóg nañ ñëw taal otom taal këram fekk ko mu tëdd di nelaw dañ leen doon rey ñoom ñëpp yàq koñ bi ñoom ñëpp loolu nag ñuy wax autorité compétent yi nga xamante ni ñoom ñoo war a jóg ci sécurité askan bi euh, ñu bàyyi xel ci lii am tey te bañ koo yemale fii te teel cee jóg teel koo arrêté ndax ku xam François Babacar Touré xam la président Fallou Sam xam ne ñoom duñu dox ci duñu dox ci ay caaxaan duñu dox ci yàq duñu dox ci ay xeex ndax bu fekkente ni askan wi dañoo jóg ne la jógal yow lañ yaakaar nga yoroon ñu suñu maire bi kooku du xeex kooku du xeex du xoloo du yàq kon ñi nga xamante ni dañoo jóg ngir yàq xalaat ne peut-être euh, buñ leen gañee dafay yàq si seen carrière politique lu bare bare bare bare bare te ñun ñëpp ñu xam lan la ñu ngi leen di wax bu fekkente ni ñaawteef moo leen tax a nañ ko arrêté ndax sénégalais xamul ñaawteef sénégalais xamul lu bon dañuy wut le 23 janvier lay leer le 23 janvier ci biir urne yi la loolu di leere ci biir urne yi la nit ñi nga xamante ni ñoo yëkkati ñaar ñi ne leen jóg leen ci biir urne yi lañ leen wane ne lii moo taxoon ñu ne leen jóg leen kon ñu ngi ñaawlu di mettitlu li nga xamante ni président Fallou Samb dal na ko tey ñu ñëw taal otom taal këram vraiment mu nekk loo xamante ni lu ñu métti la di ko masawu tamit le monsieur le maire euh, François Babacar Touré di ko masawu askan bi nga xamante ni ñoom it ñoo jog ne ñii la ñuy jox maire bi je vous remercie. bien sûr bien sûr nee naa la ñii ñoom ci li ñuy dox ci administration la ñuy dox ci xam-xam la ñuy dox ci bopp la ñuy dox moo tax tamit askan bi xam ne nax bi bari na naxaata bi bari na pendant toutes ces années ñu ne kat ñi nga xamante ni bopp lañu yor xam-xam lañu yor. ñi mën nañoo defar suñu dëkk ñooñu bu ñu taalee seen oto kon administrativement oo nañ police oo nañ UC def nañ ko saa bi ñu war a def oo nañ tamit la presse pour wax ak Sénégal wax ak àdduna ne leen élection yii comme ni ko imaam ñi ñaanee ni ko ni ko nit ñu baax ñi ñaane nañ ko toppee noonu ñu def ko ci jàmm ak salaam ku kuy gañe le soir nga gagné voilà merci. voilà Fallou laa tudd. Euh, di président gare routière de Rufisque di secrétaire général syndicat des professionnels des transports routiers du Sénégal di coordonnateur la cadre unitaire de syndicats des transports du Sénégal voilà comme ni ko Ousseynou waxee rek euh, bii vers quatre heures du matin la suñu riverain suñu dëkkandoo yu baax yi di suñu mbokku nigériens yi constaté que suñu oto biñ ñu gaaroon ci buntu kër gi tàkk na bon ñu fëgg buntu kër gi yeeñu ñu jóg ñu jógee vraiment jaaxle woon nañu parce que xamuñu lan moo war a taal oto bi mais professionnellement ñun jàpp nañ ni boobu xaj na euh, masse la moo ko war a taal mais ñuy fay mais bi safara bi demee ba ëpp ñu doole ma xalaat ni kon dañ ko dégager mu sori kër yi ci la am xalaatu ubbi bunt bi pousse oto ba mu sori kër yi mais bi ñu ko poussé la ñu gis ni nekk te ñaari pënd lañ jël def ko ci suuf oto bi taal ko bon ñu constaté kon lii œuvre humaine la lii moom nit a ko def moo bi ñu fayee nag vraiment may profité di gërëm encore une fois de plus suñu dëkkandoo nigériens yi ak riverains yi dëkk ci koñ bi yëpp parce que bi ñu ko gisee ñëpp a génn taxaw jàpp ci bi may gaare bi man plein réservoir la gaare ñu taal oto bi kon moo doon takk tàkk aw oh, suma yaakaar jeexoon na ci mais bi ñu fayee oto ba noppi la kenn ci intervenant yi xool ni salon baa ngi tàkk salle baa ngi tàkk salle baa ngi tàkk ci lañ gestu gis tam salle bi dégagé flamme bu fort di génn ci biti bon ñu gën a nag perturbé parce que dañu sant yàlla booba ñu ngi woon ci biti sax doon fay mais boobu am na ay jigéen ñu nekkoon ci kër gi xale yi ñu woon ci kër gi mais bi ñu ko defee rek ñu daal di daw dugg ci kër gi mënuñu accéder ci salle bi ci lañ jaar fii ci ginnaaw ci vitre bi xëpp ndox pour que mën a euh, atténuer sawara bi bon bi ñu ko wàññee nag après vraiment ci laa xam ni kon li taal oto bi ak li taal sa salon bi benn la kon ma génne nag kon léegi xalaatu maas xam ni oto bi kon maasul mais oto boo xam dañu jël ñaari pën def ko suuf taal ko vraiment ñu ngi koy déplorer mun nag wax naa sànq ni am naa ci mbett mais maa ngi ci am mbégte tamit ngir su la dara dalee nga xëy gis sa dëkkandoo yëpp sa mbokk yëpp ñu ngi ko séqal ñëpp daje kon vraiment bu metti woon tam woyof na man nag damay assumer j'ai fait mon choix dama koy wax di ko dëggal man gor laa dañu bokkoon ñun tous les candidats de nord ñëpp xam nañu man candidat laa woon bu amoon su may liste déposé bañ validé ko bañ affiché ko man maa désisté pour des raisons personnelles xaj na nag suma ma choix du man daf ma neex rek ma ni François Babacar laay àndal c'était un choix boo xam dañ ko waxtaanee woon depuis 2019 le nord dañ ne woon su ñu amee un candidat bu am programme bu mun a suqali nord bi waaye waaye 36 000 habitants la ñu dañ fexe ba ñun ñëpp ñu boole suñ doole jàppale kooku ndax mu mën a relever le défi man wax dëgg yàlla François bi ñu àndee léegi du ma ku ma xam ku xam fàllu xam ni man weesu naa fu nit di jënde fàllu samp weesu naa foofu man du ma ku ñuy jënd ndax alal kon dañu amoon choix ci ni euh, ville am nañ ko ñuy jàppale ku tudd Ismaïla Madior Fall nëbbuñu ko mais suñu localité bii ñu nekk muy nord François Babacar Touré ñu àndal parce que bu ñu xasee ba désister moom mooy le candidat idéal bi ñu war a àndal parce que loolu la ñu waxante woon démb barki démb te gor wax ja kon dañu ànd ak moom parce que question de localité question de gox la su réalité gox la kon ñun gis nañ ni programme am dëppoo na ak suñu bos ñu engagé wu ànd ak moom. lii nag li ma ciy seetlu mooy xaj na def nañ ay affiches yi barki démb ku ne gis am na ay affiches yu ñu def yu am photo ak suma photo bi ñu ko tafee rek automatiquement la mel ni euh, ci laa nekk cible mais may wax ne nag man syndicaliste laa man du ma ko ñuy divertir du ma ko ñuy itam vraiment intimider pour que li mu bëgg a def du ko def man je crois que ci dëkk bi laa dëkk te ñu bari xam nañ ma du ma koy dellu ginnaaw du ma tam ko ñuy xooxatal li ma nekkoon démb ak barki demb tey lañ ko gën a assumer ñu ngi koy soutenir di ko affirmer di ko confirmer que François Babacar Touré la ñuy àndal au nord ko mu neex ak ku mu naqari je vous bien si. waaw non rivalité politique la parce que man bu dul politique ñi ma xam ñëpp ci suma liggéey lañ ma xam euh, Ousseynou wax na ko sànq ñun ay acteurs de développement la ñu. Euh, souvent damay kon faral di wax li gënoon tax ñu bëggoon politique mooy kii nu mu mën a jiitee réseau des transports de la banlieue di employé lu ma 200 personnes ñu am 89 véhicules di desservir dans tous les quartiers de Rufisque te mënuñu am benn oto bu dugg noonu man ma bokk ci conseil d'administration bu AFTU te mënuñu am benn tataabu dugg noor te ñun loolu mooy suñu profession kon lool rek waroon na tax ñu jóg parce que enclavement nord bokk na ci problème mu nord waroon na jóg tax kon ñu jóg ñun pour xeex pour mën a désenclaver nord fu nit bëgg a jóge ci noor bi man fa jóge foo bëgg dem man ko dem dans région de Dakar comme ni ko ñëpp amee voilà kenn ku ne am nga wujju mënuñu cité nit directement ni diw moo ko def mais xam nañ ne suñu ànd ak François Babacar Touré ñi mu neexul ñoom ñoo def lii xam nañ loolu mais nag mënuñu citer ni diw moo ko def mais en tout cas ñi nga xam ne suñu ànd bi neexu leen ñoom ñoo ko def parce que tam j'en profite pour vous dire que man ñëpp seet si na ma ñëpp seet na ma mais après dama dajale sama njaboot ñëpp ñu leen diw ak diw ak diw ak diw ñëw nañ fi comme ñun dematuñu ku ñuy àndal ñu ni ma ah monsieur le maire yow de yaa waxoon te départ ba ni soo demul su candidat amee noor bu am programme bu baax nañ ànd ak moom kon nañ ànd ak François Babacar Touré man tànnu ma ko base bi nga xam ne ñoom laa àndaloon ñoom ñoo ko tànn pour mu leer. asalaamaaleykum je me nomme Baba ah, je me donc ma je suis un jeune du quartier donc euh, maa ngi représenté quartier bi yëpp en même temps à la fois donc di masawu sunu grand bi nga xamante ne mooy Fallou Samb di grand bu noble ci quartier bi ndax ñun fi nañ màggee fi nañ yaroo fi nañ juddoo donc ñëw na intégré si quartier bi pour jàppale jeunesse bi yëpp donc lépp lu ñu koy sollicité dañu si jàppale donc si amu si xaaj amu ci seen donc li ñu gis nii lu ñaaw la en tant que jeune du lu ñuy rafetlu en tant que jeune du lu ñuy rafetlu ci politique du lu ñuy rafetlu ci wàllu lépp donc li ñu gis fii tamit dañuy dañuy gën a jàngal dañuy gën a ñemeloo donc espèce humaine bi yor naa ci ngi sama nekk donc li ñu naan tombé mooy waral ay gaf donc fi mu bokk ñu fa nañ bokk je suis un jeune de Amadou Samba ñëw na fi plusieurs fois waxtaan ak ñun François dama koy statut tout le temps y a d'autres ñoo xamante ne aussi maa ngi wax ki i seen i en même temps parce li ñu naan dafa bokk ci loo xamante ne ni mooy doxal dëkk donc Tëngéej dafa amoon lu fi am ñu bëgg mu changer kii du demee ba dugg ci politique c'est pas par intérêt personnel parce que am na liggéeyam dafa am lu mu bëgg a changer donc loolu moo ñu tax a jóg donc li am nii tamit dañ koy masaw bu baax encore donc comme ni nga ko waxee rek kii def lii ñun la ko def que suñu quartier la dugg donc dinañ gën a renforcer suñu sécurité fii ci koñ bi donc dinañ xam ni ñu defee bu baax a baax ba ki fi dugg tey dana xam ne loolu mu def dafa ko pour Fallou Samb mais pour les jeunes du quartier ak ñi dëkk ci quartier bi yëpp nekk nañu en sécurité ndax li def nii nit mënoon na fi dee nit mënoon na fi jëlee leneen nit mënoon na fi jëlee leneen loo xam ne après daf ñuy topp donc nag santé bi fii façon leader bu ne dafay dugg personne n'est exclu façon leader bu ne dafay dugg di ñu nax des années et des années donc dañoo taxaw pour changement am te boobu dafay rey dafay dafay laaj ñu jaayanteex lu bëri donc lii mënul tiital kenn pas la bu ndaw boo xam ne dañ ko war a jéggi dem ci leneen man nag je suis représentant du quartier en tan que jeune donc di ñaawlu lii acte bii ci politique Tëngéej politique Tëngéej dafa salté politique Tëngéej dafa yàgg dafa archaïque donc des jeunes yoo xam te ne dañoo yor si leur projet personnel bàyyi ko fa pour ñëw dugg ci politique parfois da ngay ànd ak leader politique sax nga def ne c'est un 1000 francs ou bien un 2000 francs moo tax ngay topp ak moom alors nga topp ak moom pour un changement changement boobu dañuy dem nekkaat suñu liggéeyu bopp moi je me nomme Babacar Seck sànq ba fii lu ne laa fiy gis façon leader bu ne moo fi ñëw di ñu nax te loolu dafa war a jeex donc man li ma gëm mooy. Fallou Samb c'est une personne. waaw ah, ok man li ma gëm mooy Fallou Samb dafa ñëw pour apporter son pierre dans l'édifice donc loo psychologiquement et physiologiquement dañu war a xam ne Tëngéej on a plus des politiciens dañoo am ñoo xamante dañoo ñëw ce sont des bailleurs ñoom dañoo ñëw pour changer li fi ne c'est juste ça ñëw ñu pour politique pour nekk ci éternellement donc ñi fi nekkoon depuis vingt ans. ñoo fi ne tey di xëccoo ñi fi nekkoon depuis dix ans ñoo fi nekkoon tey di xëccoo ak ñun donc lool moo war a jeex may may masaw encore di masaw encore di masaw encore docteur Fallou Samb ne fii ci quartier bi bu tëddee na nelaw on va solliciter toutes les jeunes pour pour le renforcement de la sécurité ici dans ce maa ngi jégalu ñëpp di baalu ak ñëpp. Voilà, c'est François Babacar Touré, euh, candidat pour la coalition Union citoyenne Buntubi pour Rufisque Nord. Voilà, aujourd'hui on s'est levé avec une grande surprise, une concertation, parce que le président Fallou Sam m'a appelé pour m'informer que des malfrats sont venus dans son domicile euh, incendier sa voiture et sa maison. Immédiatement, on s'est affairé pour venir constater nous-mêmes. Effectivement, arrivé sur les lieux, on a trouvé la voiture calcinée et aussi donc, le salon complètement détruit. Heureusement que les gens ont agi rapidement pour que les autres chambres ne puissent pas prendre. Et cela, cela est extrêmement, euh, négatif euh, dans le cadre politique où on est. Parce que lorsqu'on parle de politique, on parle de programme. Lorsqu'on parle de politique, on parle de projet. Euh, la, la, politique, c'est l'affaire des gentlemen, c'est l'affaire de personnes intelligentes, civilisées. Malheureusement, euh, force est de constater que des malfrats, des politiciens défaitistes, négatifs, ont peut-être euh, euh peut des individus qui sont venus commettre leur forfait. Pourquoi Le président Fallou Samb, tout le monde le connaît à Rufisque au Sénégal. Dans le cadre de sa profession, est un syndicaliste des transports, aussi qui dirige beaucoup de choses. Et son influence pourrait faire basculer les élections au-delà même de la ville, au niveau du local. C'est pourquoi, euh, lorsqu'il a manifesté son désir de rallier la cause de l'Union citoyenne Buntubi Nord, beaucoup de leaders n'étaient plus tranquilles. Parce qu'avec l'arrivée de Fallou Sam, sans nul doute, nous allons gagner les élections avec plus de 70%. Et maintenant, il y a des enjeux pour des hommes politiques qui faisaient croire au président que Rufus les appartenait. Et avec euh, cette au niveau du Nord, ce qui l'interlocuteur du pouvoir à Rufisque, surtout au nord, va changer et cela ne plaît pas à certains parce que c'est la fin de la carrière politique. Nous n'accusons personne. Nous personne, mais nos pensées, non pensées vont vers certaines personnes. Nous n'avons nous même pas besoin de faire demander à ce qu'on nous suive notre regard. Nous avons des informations que nous ne détenons pas devers nous. La police est arrivée ici, a fait ses constats. Le travail sera fait pour trouver ces malfrats afin de les mettre au état de nuire. Mais aussi, nous demandons à la police de Rufisque de prendre ses dispositions pour sécuriser les maisons. Parce que ce n'est pas seulement la maison de, de, de Mafalo Sam Dangou, Sanchaba, mais aussi les maisons du, président Fallou Sam, de les sécuriser, ainsi que les maisons de tous les leaders politiques de Rufisque, quelle que soit leur coalition. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on nous dit qu'on n'a pas le droit de nous défendre nous-mêmes. La violence légitime appartient à l'État, qui l'exerce par la police, la gendarmerie et l'armée. Alors, pour ne pas que nous prenions nos dispositions pour nous défendre, il faut que la police aussi prenne ses dispositions afin que pareille situation ne se plus à il faut que ces gens soient interpellés et incarcérés. C'est ce que nous demandons. Je profite de l'occasion pour féliciter, encourager vraiment le président Falloussan. Sa décision courageuse lui a valu des désagréments. Mais étant un combattant, un syndicaliste, un homme rompu à la tâche sur le plan de la lutte pour les droits des travailleurs, les droits sociaux, il est assez préparé psychologiquement et moralement. mais il a des épouses, il a des enfants. Peut-être que ses épouses sont atteintes, peut-être que ses enfants sont atteints. C'est là où nous interpellons l'État afin que des dispositions soient prises pour la protection de leur, des familles des candidats et des personnes les plus influentes dans les élections locales. Voilà ce que je voulais ajouter d'après la déclaration du président Fallou Sam. Et je dis que l'Union citoyenne Buntubi, les délégations commencent à défiler ici. On a les gens de Nibzat, de Darwahman, de Djorga, de Djoko, de Sanchaba. Tout le monde est venu. Voilà, tout le monde est venu. Les gens font des va-et-vient pour montrer leur solidarité au président Fallou Sam. Cela ne fera que nous renforcer, président. Cela fera que nous renforcer et vraiment que un peu aussi éclairer la lanterne des quoi pour leur montrer que le chemin, c'est l'Union citoyenne Buntubi, élire François Babacar Touré et Fallou Sam.